wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallam bokki jullit yi seetaan yëpp ak bokki taalibe yi moo ngi dellu si waat di jëfe ndigal di leen jotal ay kàddu yu gàtt yoo xam ne ndigal moo nu ko teg ñu di ko jéggalu suñ kilifa yi koy dégg te waruñoo yëkkati suñ takk seen suñ kàddu ci ñoom seen seen kanam sëriñ Abdul Fattah mi nga xam ni moo yor mbirum màggal gi moo fi yebal si sëñ Ahmad Badawiyu ci turu sëñ Abou Baraka mi nga xam ne moo jiiti njabootu sëñ Fallou gépp ngir ñu feddali kàddu yi nga xam ni sëñ Ahmad Badawiyu mii jotaloon na ko mbooloo mépp mbooloom taalibu yëpp mbooloom jullit yëpp mu jëm ci ndigal li nga xam ni su sunu kilifa gu baax gi Cheikh Modou Mountakha joxe woon na ko mu jëm ci màggalu ko Kazu Rajab bu ren gii te lépp di ndigal ndigal yoo xam ni ay njëriñ rekk la séq ay njëriñ rekk rekk la ëmb ay barke rekk la ëmb sëñ bu fataa wax ni sëñ Ebo nee na mi ngi sant mboolem taalibe yi ak mboolem njabootu sëñ Fallilu gi ndax biñ déggee ndigal li ba léegi gis na ni nam ko na ko ko ko sëriñ bi digale woon njabootu sëñ Fallu gépp doom yu góor yi yu jigéen ñi ak taalibe yëpp ñu ngi koy tàmbalee doxale noonu ba dara desut lu may àggale àggale gi waaye tàmbali bi lépp nee na nam ko waxe woon ni nga ko nuy defee ba ñu jub àggale gi mu ni woon nag day sant taalibe yëpp ak murit yëpp ak soppe yépp ci jëfe googu nga xam ni ñu ngi koy jëfandikoo ndigal yooyu nga xam ni Cheikh Modou Mountakha joxe woon na ko mu jëm ci màggal gi di leen sant bu baax gis na lépp gis na niñ koy defee la ca te la lam cay teg rek nee na moo di soññ nag mbooloo mi ci li nga xam ne mooy xolub màggal gi te moo taxoon nit ñu jëf màggal gi mooy sant yàlla sant bu sëriñ Fallou sant yàlla ci boole gi ko suñu borom booleek sëriñ Touba ci guddi googu mu bokk ci sëriñ Touba loolu moo sa moo moo sabab màggal gi su ko defee mu wax ni nañ fonk njàngum alxuraan bi fonk njàngum xasaayit mi fonk salaatu ala nabi ginnaaw bu jiitalee jéggulu ak balonte àq ak sàkk sarax mu ñetti kàddu yi nga xam ni sëriñ Fallil daana ko wax di ko digal unité yëpp njàng moomu nekk nee na fu waay nekk rek nga defe ko fa nga nekk foo waay nekk nga teewlu fa jàng alxuraan jàng xasaayit def ay asgar def salaatu ala nabi jox ko addee yi Serigne Touba waaye jox ko addee yi Cheikh Modou Fadil waaye ñaanal ci suñ kilifa yi fi nekk suñ borom bàyyi leen fi muy ki ki ñu yilif ñun ñëpp muy Cheikh mun taxaa ak ki ñu yilif ci kër Sëñ Fallou muy Sëñ Abo ak njabootu Sëñ Fallou gépp ak njabootu Sëñ Touba gépp góor ak jigéen waaye ñaanal leen ci mboolem taalibe Sëriñ Touba yi yi nga xam ni seen lépp dañ ko bàyyi ngir topp Sëriñ Touba waaye ñaanal la ci mboolem jullit yi ñaanal ci mboolem kilifa yi diine yi ñaan ci àdduna bi nga xam ni yëngu-yëngu yi bari na suñu borom def fi jàmm boo gisee mu defee nii moom sëriñ bi jox ko ni ndigal sëriñ aboo nee na boo gisee sëriñ mu tax a joxe ko ni ndigal ñaan dafa ànd akuk dal dafa war a ànd akuk dal dafa war a ànd ak ànd akuk teey dafa war a ànd ak ragallu dafa war a ànd ak toroxlu moo tax bi li ñëwee tombee guddi guddi gu tedd gi mu mu tombeel tombee ku baax ko ci gën àdduna te te dañ ko ci màggalal mu wax ne nag kon fu waay nekk ci àdduna ci àdduna ci biir ci biir ci biir ci biir Sénégal fu waay nekk ci biir àdduna bi te sopp sëñ Fallu wala nga yaakaar ko na nga teewlu boo mën a jàngub kaamil nga jàng ko boo ko mën nga jàngal ko te neexal kala ko jàngal jàng xasaayit def salaatu ne nabi noonu ma ko waxee ci ginaaw def ko addi sëñ Falilu te ñaan ñaan yu ñu waxoon yëpp mu ñaan yu daj wax na ni itam mi ngi soññewaat nag ñetti kàddu yi nga xam ni junj naa ko léegi te sëñ Falilu daa ko digle muy tuub sàkk sarax balonte àq ndax ñoom dañuy def ñoo kilifa yoo xam ni lépp lu ñu wax day day wéy ba day day ba àllaaxira ndax ñetti kàddu la yoo xam ne bu ñu ko jëfandikoo suñu tey dana baax suñ ëllëg dana baax te saa su nañu di ko wax Cheikh Ahmadou Mountakha mi fi nekk loolu rek moo di liggéeyam ci yoon wi bëgg ñu am saa def daare ni ndax nee na tuub sa digg sa borom la te suñu boroom moom karim la boo xam ne bii ku ku ko lu mu jéggal la ak lu bàkkaar ba rëy rëy lu dul bokkaale te bokkaale sax boo ko jéggaloo mu jéggal la ko boo ko jéggalu wut la la ko du jéggal waaye boo ko jéggalu mu jéggal la la ca topp mooy sàkk sarax sàkk sarax moom ku ne xam ne ni ma la fa nekkal wa aqridullaha qardan hasanan ma nga fa di la nekk lu mu bari bari lu mu néew néew suñu doon du ko fàtte dara du ko du ko téye dara ma nga fa di la te boo demee loo loo fekk soo soñoon mu yokk balonte àq nag mooy di ci gën a am maanaam mooy di ci gën am solo ndax yow ma yowmal xiyaam bu fa ab coono amee bu diggante yàlla ak jaamam bii ndax dara dara am jaaxalu ko ndax ni ko sëñ Tuubaa waxee ci matlabu eh, matlabu matlabu shifa yi jox leen li nga xam ne amul la njariñ te ba fagal li nga xam ne loolu loolu moom kon ne xam ne ni suñu borom ku jégg lu mu jéggal la ba ca topp muy sàkk sarax mu ngi noonu ko boo gisee yomul xiyam coow di fa am daal mooy diggante nit ak moroomam diggante jullit ak moroom bi kon moo tax jéggaloonte gi manis naa xam daanaka moo ci ëpp solo ñu jéggaloonte jéggalu suñu bàkkaar te def ko def ko def ko ci ak dal def ko ci euh, xol bu sell def ko ci xol bu laab mu nekk ci noonu kenn ku nekk wax sa morom ni ko baal naa la baal ma baal naa la baal ma su ko defee loolu su yaatoo rek lépp mën naa lijjanti ko ñetti kàddu yi suñu fàllu yuy daal kàddu la yoo xam ne bu ñu ko sëñ aboo nee mi ngi koy soññ ñëpp tuub sàkk sarax balonte àq tuub moom ñëpp a ko man sëñ Fallu bañ na ko ba euh, sëñ sëñ sëriñ Tuubaa bayit yu bayit yu mu ko joxoon tublil la si alayhi laysa li si laysa alayhi yax faa la ko la ko tàmbalee tublil la si laysa alayhi yax faa waaw ba àggalee ko ni ko wàccal makaana duri nafan abada su ko defee nga xam ne kon léegi ginnaaw ba mu defee baytu ba ko sëñ Tuubaa defee la baytu rek la daan dégg ndigal la daa tàmbali def ak xasida goo xam ne gii astafurullah la ko tënk muy fukki bayit astafurullah boo ko limee fukki bayit la inni ila rahmani suma taabi min kulli ma yufdi ilahi taabi ba xasida nga jeex wax nañ nañu jàng xasida googu itam sëñ Abo waaw ngir lii sëñ Fallou topp ndigal li ko sëñ Tuubaa joxoon ci jéggulu ba tax mu def bayit yooyu mu bay ci bay ci listixfaar kon ñu fonk bayit bayit yooyu di ko di ko jéggulu sàkk sarax yi itam neen fu waay nekk ak foo mën a nekk na nga sàkk ci sa alal def ku ngir ndigalul sëriñ bi jox ko ña aajo wo lu mu gën a baree loolu moo gën balonte ak gi nag moom mooy ni ma la ni ma ko ni ma ko sëñ bi leeral léegi nee na yomal xiyaam ku fa sonn sa moroom mën a fa sonal waaye du sa borom yowmal xiyam ku fa son sa morom mo la sonal way du sa borom kon nak nañ jéglante fi japp na ne sax buñ jéglante yi jàmbat yépp yëpp dana dañ bu ñeneente lu baax yëpp dana dañ waaw ndax yeneen bax nako né la yumin ahadukum hatta yuhibbu li axihi ma yuhibbu li nafsihi kon moy lool bu ko défé képp ko xamni ki nak nag yaakaar nga sëriñ bi té amo kenn ku dul mom la nga wara def moy lépp lu la nga def ko lépp lu la nga bayiko kaddu kàddu dal daal bi nañ ko nañ ko jotti mbooloo mi te jëfe it ndigal yi nga xam ni euh, joxe nañ ko ngir mu joxe wër geeram ci nit ñi loolu mu ko def jëm ci jumaa ji rek kuy dugg ci jumaa ji amuk set ni ñu ko lislaam jëkk a digale lislaam ñu ko jëkk a digal waaw ndax bala ngaa bala dugg ci jàkka da ngay laab bala ngaa dugg ci euh, barab yu sell yëpp dangay laab kon nee na ñu jiital laab googu fonk sunu bopp téye ko te di ko jëfandikoo te xam ni sëriñ bi njëriñu àdduna ak àllaaxira rekk la ñu bëggal kàddu yi daal sëriñ boo xam nañ ko jëfandikoo nañ ko jottali mi ngi sant nag bu baax di ñaanal nag ñu tàmbalee màggal gi ci dégg ndigalu sëriñ bi ñu wéyal ko ba lépp jeex ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xasida gi nga xam ni mm, sëriñ Fall daana ko jàng mas na am na bis boo xam ne bi ci rajo jumaa ji la ko jàng ñëpp di dégg mu toog ci néegam boobu micro ci wet lal bi mu toog ci néegam ñaanal ñi jàmm ba ba ba noppi dal koy jàng mi rabbi bi waaw rabbi bi la sana xat fa bi jaay abdul man laay xat la jaa bin rabbin la sharika lahu wa yawm wa rasati han mala sallallahu salawatullahi fi abadin alayhi fi bihi kulli bihi kala adduhu ilahi lasi hamdatun waahibuhu li jundil khalqi ma yaxtaar min baraa najituhu jalla wa amanu karamani takrim hadin wa kulli min lahan bari'a rahmanu habli jamihi alxalqi rahmatan man yuxni ani sharri man qur'anuhu qara'a xutumatal mustafa xutumatal mustafa خطومة المصطفى عن كل مسألة وترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل وسلام كالذي وكلمت وبارك سمود الفاضل